koñ bi da ngay yeewu mu wéet lool waaye dinaa sant borom bi yàlla baax na àdduna moo nekk loo xam ne sii day képp ku ko dëgmal rek maaleykum salaam sa ci loo nekk sant baax a baax sant yàlla akub yeneenteem ci laa jëm dama laa soxla booy mbaa jàmm la maanaam yéen bu ngeen di soxla nit ni ngeen di ñëwee day mel ni man dama am leen teg waa loi leen. non non man duma ma loi ma dara yow ci koñ bi laa dëkk xam naa. waaw bisimilah ñu de. non non non bariwul nañ toog. booy kay gan dañ koy yëgal ci biir. nañ toog tuuti li ma la wax bariwul. kon ay nañ toog nañ toog na nga def père. alhamdulilahi rabbil alamin. waaw père yow moom sama père nga parce que man ci koñ bi laa dëkk quoi. waaw war naa xam bu baax. xamee naa la xam naa la. waaw waaw mais man jàmm rek moo ma indi jàmm ak salaam kese moo indi. Mm, moo gën ci yow de. waaw parce que non du ma père man jàmm rek moo ma indi man xuloo ma xeexu ma. la ma indi la ñuy diglu waaw koñ bi yow gis naa ne bokk nga si payi ak kule ci koñ bi yow jàkka ja kër gi fii da nga xam xamoo xamoo leneen du ma la gis ngay dugg ci ay affaire a yooyu yu ñàkk fay da comme yeneen payi moo tax nag li ma lay def nii li may def nii ah ah ngir yàlla moo tax ma koy def ak sa jëmm ji ak sa jubaay bi nga jub ci koñ bi ñëpp xam ne kenn xamewu la ay caaxaan ci koñ bi ndeysaan damaa yor fii xaalis ah waaw damaa yor xaalis boo xam ne deux cent mille waaw deux cent mille waaw deux cent mille laa yor waaw waaw mais per xaas bi xaasu jàmbur dama la ko bëgg a dénk ba tabaski bi su tabaski defee dix jours nga delloo ma ko nag dara taxu ma koy def mais damaa xam ne ku jub nga te maa xam ne su ma la ko dénkee ak ma denc ko benn yem parce que xam naa ne su ma su ma ko soxlaa di ma ko jox deux cent mille la nag bu tabaski jub see laa ko soxla alhamdulilahi rabbil alamin waaw per li xaasu la dégg wax la rek waaw barke yow man xiyaamu lakk ber waaw maa di gisee ku jube ni yow wala ku yaroon yow. Ah, dëgg la fi nga ma fekk. Ah. nekk na foo xam ci ci ak jub rek ci lay dox. dëgg la kon yàlla baax na. Ah. léegi naa tàllal loxo yi rek ma defal ñaan. waaw dëgg la waaw. gupp gupp faada gupp lu waay man gupp la fër la yàlla la yàlla musal ci suñu lañ ak rek ak sindax si ndax ak jargoñ barke bi yow man xiyaam lakk ba. yàlla na la sam noonu sonal ba nga ñëw fekk ma fii ma toog nga joxaan ma xaalis soo bàyyi amul na jariñ amiin waaw père na baax na maa ngi dem demal rek waaw mais per li ma la wax sànq nga bàyyi xel xaalisu jàmbur la nga bu tabaski père yaa ngi jooy de père xaalis may ko dama la ko dénk bu tabaski jub see jub gi nga sedd ci man rek kooku laay jooy ah, waaw jërëjëf booy yal na la yàlla defal jàmm fi lahul maxfuus gi ngay dégg da nga fay dem. incha allah rabi. acca demal waay. mais père bàyyi ci xel dégg nga booy kooku dugg na. waaw ok. boo demee rek waaw kon baax na. booy man jaa dem. waaw baax na merci ah. jaajëf. baax na jaajëf. alhamdulilah. Eh, man man père Diop man maa ngi koy xaalis mais dafa mel ne paa bi dafa ma doon ñaanal quoi te sànq ñaan maa ngi ko gis muy ñaan mais nag paa bi paa sama xaalis bi am na lu ci luus damaa xam nga dénk nit xaalis muy muy muy mu lay ñaanal loolu loolu lan la xaaral xaaral lii du ma ko bàyyi mu sedd. ay ah, Père Diop Père Diop Père de man de ñëwaat naa. waaw waaw booy teel sa loxo rek. non man la de man maa jox maa dénkul xaalis bi léegi sama mag bu jigéen bi daf maa woo nee na nee na deux cent mille yi léegi. booy waxal te bu teg sa loxo de. Père xamee woo ma de wala teg lu weer pour nga xamee man man maa dénkul xaalis bi léegi. booy. sama mag bu jigéen bi. yaa fi ñëwoon sànq. waaw lan la. man maa la dénkoon deux cent mille. xaalis bu yóbbu naa ko banque man du ma taxaw xaalis du ma yàgg xaalis. xaalis bu yóbbu naa ko banque booy. per man maa jox xaalis bi léegi même pas cinq minutes. booy père yaa nga église. waaw dama ne man xaalis maa la ko jox léegi. même pas cinq minutes booy doo ma ñaar dërëm doo ko jot yow. père teg maa bañ a tooñ sama mag bi nee na ñu jox xaalis bi nañ ko yóbbu envoyé ko ñu jënd xar benn yoon. sa ndey ak sa baay boo leen indee sax loolal xaalis. yow yow père ko saaga. Ah, la yow mën naa laa déggee xaalis nga wuy ma dof ndey nee na nguuda siise nga jël ak aari ak aram waxatu ko ma tuuti ndayam kala man ñu may dem jëy ma doon ma doon